mbokk yi ñu delluwaat di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak seen télévision régionale di Prestige TV fii ci cees di leen gërëm di leen sant euh, tey ci suba nag euh, suñu ndaw yi nag euh, wàcc nañu ci terrain bi demoon nag wër askan wi fii ci cees ngir xool nag ana ban gis-gis la ñu am li jëm ci wàllub wate yi xam ne moom la ñu génni Euh, ndax gis ngeen ne ginnaaw bu ñu xob yi ci bésub dimanche ba léegi am na wax yoo xam ne nag jot na jip jot fare jógee nag ci ñaari camp yi xam ne euh, ñoom ñooy xëccoo mim réew euh, ba tax na itam ba ginnaaw ñi xam ne ñoo fare ci coalition Idy 2019 ak ñoom coalition Sonko président ginnaaw bu ñu génnee nag daal di def benn conférence de presse doon àddune naan Euh, il faut deuxième tour am waaye nag euh, ñi xam ne ñoom ñooy xëccoog ñoom euh, fare nag ci langub benn Bokk Yaakaar ci gémmeñu gémmeñub wala ci baatub rek kii di Mohamed Boun Abdallah Dionne daal di génn woon nag ba daal di joxe ab chiffre wax coo ñaari wax yooyu nag daal di indi nag ay werante ci Sénégal ba tax na nag tey ci Thiès ginnaaw bu ñu suñu ndaw nag demee ci marché central ñi xam ne nag ñoo fare ci ñaari langue yooyu yëpp àddu nañu ñeneen nag nee nañu kii di Boun Abdallah wax tegu ko fenn waru koo wax ndax moom ab kilifa la te li mu wax dafay nekk loo xam ne nag manees na taal réew mi ñafare nag ci benn Bokk Yaakaar naan ala mukk loolu nag manees nañ ko wax ndax ñoom ci seen wàllu bopp ñoom ñoo njëkk tëb rek naan deuxième tour dina am ci loolu nag suñu ndaw ñi xam ne ñoom la ñu yebaloon tey ci suba fële ca marché central doon def micro jëm ci wàllu woowee di sek ndaanaan ak Moussé Gueye lii la ñu indil ñu teewlu ñu ñëw nag de la ci tolluwaayu jamono ji réew mi fi mu toll ci pëccëxoo bi diggante opposant bi ak le président de la république ban jàng nañ ciy defal. waaw euh, balaa loolu maa ngi leen di sant ci opportunité bi nga xam ni offrir ngeen ma ko ngir ma mën a wax d'abord au nom des commerçants yi nga xam ni partisans de réew mi lañ ak au non de la jeunesse du de de de la zone nord man ku ma xam.

mais quand nous continuons, ne gis ngeen ni élection yi on a relevé des cas d'irrégularité n'est-ce pas vous tous vous le savez ça est dans euh, ça est dans vos dans vos applications WhatsApp il y a 13 ans il yu am 12 ans de voter au Nouveau, euh, du nord plus précisément à Matam à Bakel précisément à Linger. ay y a xam ne daanaka ay carte d'identité scolaire sax mënuñu ko am ñu encore Guinguinéo le même cas on l'a relevé là-bas Ce bëgg suis au Sénégal parce que premier ministre attitude de c'est une attitude irresponsable qui qui aspire devenir un premier ministre parce que mën premier ministre le premier ministre sortant déclaration bi qui contexte bi ko Sénégal le contact waaye nak alhamdulilahi rabbil alamin mën nañ ñi ñaan yi nga xam mag ñu bax ni ñi ngi fi mel na ni comme ça sans froid bi nga xam mo tey nit ñi ba Sénégal takul lolu ñi ngi ci remercier la maturité sénégalaise. directeur de campagne euh, bu bu président candidat Macky Sall dem ci euh, euh, ci siège am def fa ay déclaration ginnaaw bu ñële défé sen déclaration pare man gisuma la ci nek mais mom dafa joxe ay chiffres. non dama ñu la bu joxé chiffre bu mën di joxe. directeur de campagne moo toog ca ca directoire de campagne am wax loolu ku ko mën a bañ c'est-à-dire on est en démocratie ay modifier information naan lu tax warul wax ayo su doon premier ministre day dem ci building administratif def ay déclaration donc ñoom dañuy politique mu dem def loolu loolu kenn werante ko. Euh, waaye dafa am loo xam ni yoon moo ko tere parce que lépp li nga xam ne moom moo régir l' élection du Sénégal dañ ko xaatim ci benn charte bu ñuy wax le code électoral mu am. un code consensuel pour xamni ñun ñëpp dañ d'accord ci mais bo xolé ci code électoral li wax les organes habilités à donner des résultats ce n'est pas le premier ministre il y a ce qu'on appelle le la commission nationale de recensement des votes d'abord mu dajale li nga xamni ni mo génn ci urne ginnaw y a ce qu'on appelle les magistrats habilités à donner ce qu'on appelle les résultats provisoires nous non, un conseil constitutionnel mais ce n'est pas à lui le premier ministre de nous donner des résultats fallacieux des résultats autoprogrammés on l'a invité dans une émission au niveau de la TFM qui est une télé partisane Nous, on a gagné avec 57 mais war nañoo savoir le lapsus du premier ministre concernant même le taux bi en français quand il parlait il avait dit 57 en wolof mu 54 donc lapsus en une poignée de secondes en tant que premier ministre kon xam nga ni wax jubul. mais li ma bëgg nit ñi xam ko mooy wax naa nan dem ci jàmm woote messages ñi ma am samay message yónnee naa ko sama whatsapp woote ci jàmm damay rappeler encore à Thiès que ni ce def euh, li nga xamante ni que nous yéene danoo yene Idrissa nek nekk président waa Touba yene ko yeneen gox yi yene yéene wa waa étranger yéene Macky kon bu nu boolee li lépp ñu ëppale ñooy dem loolu mooy démocratie mais ça ne veut pas dire que ni li dafa wara am li la kenn amul ci ñun ku wara réclamer benn tour wala deux tours peuple sénégalais mo am na mu tek loolu lañuy saytu ñi ko war a wax né di lañ ko saytu kon nak une fois may wax ni euh, li may déplorer moy dama nek témoin gis ñu joxé euh, journaliste ni ngagne ma gis ko xamni Euh, bami bëgg dugg journaliste bi ci bofu police yi tëj fofu ñom dañu fëgg ta ñom ñanga fa woon parce que journaliste ba mu duggee ki nekk ciork FM ak keneen Corkat FM ñom dañ ni ñun ño wara jébané jéebaane buñ duggul kenn du xam ban duggé jébané bu dé yenen candidat ñoo ñëw jëga fale naan nan wax li nan wax li loolu rafet lu mako ñu wax sank gis nga waji ñu wax sank yow la rus dama la jox respect dama doon balee yàq sa li ngay filmé ki li muy wax du waxu nit du waxu do ab dof la rek ab complexe la gis nga gis nga rew ma ñu né njiitu réew mi fi ne moo njëkk a complexe ju moom dafa faible ba nga xam ni journaliste bu mu gis ni xam nga ko mën a amal njariñ wala ku mu gis ni yaa ko ëpp expérience mu jël la taf la ci boppam boo gisee journaliste yi bëgguñu Macky Sall jóge ci réew mi looloo tax gis nga si solo mbaam mu bon mi li mu wax tey dégg ko Touba je m'en fous dama parle pas waxi bu ma kenn waxati waxi Touba xam nga ne kooku du nit autoroute bi moom seen ko lay dagg dañuy dee rek autoroute bi suñu sëñ Touba ko faggul boppam li fi ne ci kër dina kenn xamut ni mu toll nan nangu nan nangu autoroute bi la ko tàllal xamuñu ko de barke alxuraan këru diine xolal fuuta googu ñu fuuta googu bu fa autoroute ne woon picc du fa jaar li fi ne ci kër diine bari na autoroute bi lan moo tax yàlla tànn ko ñu laal ko fii Touba dañuy rax se rey seen bopp dañuy sonal seen bopp waa jooju di wax moom man ab dof laa ko jàppee xaw ma jóob la xaw ma nu mu tudd ab dof laa ko jàppee mën naa bañ a jural réew mi dara ndax jàmm rek mooy am ci doole Maam Cheikh Fall xanaa may nit ñi jàmm maanaam ñu dem ak nit ñi deuxième tour képp président de la république ci boppam loolu rek moom moo ko war ndax boo xoolee sondage yi ak li mu taxawee kenn ku ci nekk ak fa nga toogee war ngaa bir na li sa jëmm ji nii maanaam deuxième tour daa war a am faaw deuxième tour am sañ ta bañ la waaye jàmm rek ay mujj barke maam Cheikh waaw. ku baax nuyu final la. Final fay leen la. fay leen la. tolluwaayu réew mi noo ko gisee. waaw tolluwaayu deuxième tour bi day jàpp naa ni manipulation moo am daal. mais intention bi askan wi am ñëpp xam nañ ko mooy askan wi dañoo jël air bëgg a changé. ñun dañoo toll ci air bëgg a changé air léegi nag daa am benn parti boo xam ne dañoo taxaw ci ñoom ne loolu taxawul te man damaa gëm ni nit ki bu ne dee nga def nga résultat ci réew mi def nga fi lu kenn deful. bu ne tollu ci xëccoo naan may pii ak may deux kon yow li nga doon li nga xam def nga ko askan askan gisuñu ko bu dee nit nga war nga xam ni yow mi li nga li nga xam ne defal nga askan gisu ko daal li askan bëgg nga defal ko defaloo ko da nga koo defal leneen lu bëggul fii maa la wax ni Thiès la ku bañ Idi doo fi nekk fii pendant des années depuis Senghor ba léegi mosuñu gis président bu toog as bu toog bil président defal fii Thiès dara kon ku defarul dara Thiès duñu la defal tous da nga ma ko ànd ak Sëñ Tuubaa ñu ànd ak moom ko ànd ak waa réew mi ñu ànd ak ñoom ko neen ku fi mën a ñëw te ak ñoom duñu ànd ak yow autoroute autoroute bi ñu bëgg a teggee Touba nag. dindi ñoom ay tay lañu ay tay xam ay neefere lañu xam ñoom Fuuta yi ma Fuuta ay neefere lañu xam autoroute bi sëñ Touba ko moom. ñun moomuñu ko. normal ah, ah ma nu mu tuddati ah Macky moomu ah, ko. te da ko fee fekk te fa jaar da fay. kon luñ bëgg lan lañ bëgg nan nu bàyyi suñu autoroute ñoo ko moom. ñun premier tour wala deuxième tour bu ci am. dama ni premier tour bi waxuñu dëgg. li fi am mooy deuxième tour te bu demee deuxième tour ngeppalu ah ah ah barke borom Tuubaa ah jàngat bi daal passé wul lépp rek ñu def ko ci fair play te xam ne Sénégal ñoo ko moom ndax dëkk bi doxee na noo xamante ne bii tey képp ku fi jéem a fitna wala nga fiy def loo xamante ne ak li sart réew mi damaa yaakaar ne loolu du doxal am réew te am réew day toll foo xamante ne lépp lu nga xamante ne moom lañ ci war a def rek nañu bàyyi li nga xam ne mooy yoon mu def liggéeyam que ça soit mu doon Idrissa Seck mu doon Macky Sall mu doon Sonko kum ci mën a doon ñun suñu intérêt bopp moo ñu moo solo mu yor réew mi yor bu baax rek. loolu moom liñ ciy wax moom du bari maanaam réew mi moom ñun ñoo ko bokk maanaam lépp loo xam ne maanaam dañ ko fi war a def dafa war a doon loo xam ne lu sell te rafet la waaye ñun ci li ñu dégg euh, ñu dégg ñun ñun du ñu ay jaayil ndax ñun ñii fi nekk ku ne am nga sam xel yaa ngi xalaat ndax situation bi nga xam ne moo moo moo moo fi posé wu moo fi posé woon ci Macky Sall ndax Macky Sall ba bañ koy ba muy dem ak Ablaye Wade ñuy wax deuxième tour li problème bii fi am ak problème ak ak Ablaye mooy problème bi nga xam ne moom moo fi am moo fi moom la am ni ak opposant yi ndax moom dafa jóg dafa dafa jóg Macky Sall dafa jóg euh, toog de wax dénoncé maanaam injustice bi am ci réew mi boobu moog ablaay Wade ñoo dem. wax ni maanaam Ablaye Wade bu defee lu dul yoon dañ koy fekk pale génne ko au deuxième tour te moom terme bi mu utilisé sax dafa ñaaw ndax dafa dem ba wax ni maanaam on va le dégager on va kon bu demee bu ñu demee ba tollu fii te moom ni ñun ñii di wax ñun ñii ñëpp dañoo am suñu xel am ay analyse am lépp ñun ñii di di xalaat man résultat yi ñu seetaan ci télé bi te nit ñi joxe ko xam nañu fu ñu xayma ci Sénégal Macky Sall amu fa ndam wala bu jiitoo it bu ñu boolee lu opposant yi am daanaka day tolloog ak li mu am wala ñu romb ko kon maanaam lii yoon mooy Sénégal buñ ko taal ñoo ko bokk ñi nga xam ne nag mooy juges yi ñoom la ñuy ñun dañuy interpellé juges yi ndax ñoom ñooy ñoom ñooy équilibre ci dëkk bi ndax Ablaye Wade forcé lii fi am amoon nañ Ablaye Wade mayoon nañ ko chance ñu nangul ko ticket bi nangul ko lépp mu dem troisième élection mais moom bañ ko gagné dafa doon un patriote deuxième tour ba mu amee dafa nangu kon Macky Sall ay waa këram dañoo war a nangu juges yi ñoom ñooy tranché ñoom dañoo war a tranché li nga xam ne mooy favori benn nit du mën a taal suñu réew fi ñuy waxee nii rek Macky Sall ma nga ca

xam nañ ni xel ni Fala bu dee deuxième tour day am moom man de loolu laa gis deuxième tour te loolu la ñëpp gis Thiès adduna bi yëpp gis nañ loolu. waaw kii dafa wax léegi benn affaire ni ay journalistes yi dañuy far ak faruñu mais ñun gis nañ fi gis nañ loo xamante ni moo gën a yéeme gis nañ télé boo xamante ni dama koy tudd TFM télé boo xamante ni dañ faa joxe ay résultat yoo xamante ni nii dañ ni Japon ay élections yi bi bi mu jàllee Japon ci boppam. résultat yi génn na fa ñu joxe ay soixante ay chiffres te chiffres yooyu ñu joxe Japon amul élection mais loolu moo gën a graw mais li réew mi kenn ku ci nekk am nga ci tolluwaay kenn ku ci nekk tamit am nga ci xalaat waaw kenn ku nekk tamit bu réew mi tollee fii war ngaa génn sa xalaat ñun moom wax dëgg yàlla ànduñu ci arnaque hold-up électoral moom wax dëgg yàlla waa Thiès ak Sénégal ak fépp partout dans le na kenn du ci ànd nañ teg affaire yi ci yoon xam nga xam ne démocratie démocratie la. fii nii tey jii fii nii nii tey Macky toll ah moo ko Ablaye tolloon nañ fa mais dafa rafetoon kon na rafet daal. mais élection yi dafa dafa dafa déroulé ci jàmm ak salaam ñu dem ba verdict des pëccëxoo am loolu lan moo ko jur. pëccëxoo bi gars yi xam nga tamit yaa ma gën a xam affaire yi moom leer na quoi résultat yi moo atte boppam même buñ calculé wul woon ci gis-gis rek boo déggee di nga xam ne di nga xam ne lii xam nga. am na lu am daal am na lu lii dafa am dafa leer daal lu ni fàng nag kenn du ko jeex waaw lu ni fàng kenn du ko jeex ñun ñoo ngi ci ginnaaw Idriss Seck Idriss Seck ñoo ngi ci ginnaawam duñu ay politiciens de mais ñoo ngi ci ginnaaw Idriss Seck élection yi deuxième tour la deuxième tour la. te jàngat bi daal du leen lu dul dara dañ ko teg ci yoon mais boo xoolee fi mu toll nii day mel ni affaire yi affaire dañ ko bëgg a dañ koo bëgg a njuuj njaaj quoi te loolu mun na ñàkk mun na ñàkk daal parce que en tant que premier ministre warut a taxaw di joxe résultat boo xamante ni conseil constitutionnel joxewu ko loolu c'est pas normal c'est pas normal kon nañu bàyyi ñi nga xamante ni ñoom lañ fi teg lu ñu génn ñoo xam ni loolu la mais sondage yi li mu wone moom deuxième tour dafa war a am moom par fois man président Idrissa Seck laay waxal bii paa dama koy ñaan. Euh, mu nekk à la hauteur ndaxte dafa xeex ak Ablaye Abdou Diouf xeex ak ablaay Wade xeex ak président Macky Sall am trajectoire politique am CV bu baax am lu mu seq ak waa cees am lu mu liggéey Thiès am lu mu def bu mu nangu gone gu ndaw di Ousmane Sonko ñëw di ko taaj jox ko micro ñu ko waxal bu mu nangu loolu. vraiment bu mu nangu loolu man loolu laay bañ. mais déclaration bi li ko waral premier ministre moo gën a joxe chiffre moo tax ñu dem def déclaration. loolu man bi ma ñoom man man Idrissa bi muy génn fii Thiès bi mu départ di dem man dan ma indi information ni mi ngi dugg autoroute bi di dem lan ma wax ni Bougane mi ngi def lii ci laa am information bi te yëgagul ki ma jox information bi muy dem dikk ñu caméral ma leen ma leen gis ñoom kon xam naa li may wax man may wax ni la. le ko yëkkati xam naa ko parce que nag nous avons les renseignements qu'il faut parce que dañuy xeex ak moom kon man am na loo xam dama koy jël samay matuwaay lépp dara umpuma mais boo gisee mani la man moom laay waxal su ma sañoon vraiment mu mu mu mu mu bañ a topp xale bi. loolu avant Idrissa Seck di ko def ñun def nañ ko mais ñun on n'a pas avancé de chiffres on a fait qu'une analyse objective de la situation ñun avancé wuñu ay chiffres Idi. Idrissa Seck, le président Idrissa Seck n'a pas avancé de chiffres. Il a le droit d'émettre des analyses comme ñëpp waaye premier ministre moom dafa mel ni bu réew mi mën nañ ni man je le prends comme responsable ni moom moo Sénégal vu sa posture vous woon a taxaw loolu gàcce la loolu lolo, c'est c'est c'est même c'est même c'est même maintenant naa ni démocratie sénégalaise ak fi mu toll te loolu duñ ko ko may deuxième tour mais forcément les témoins sont là les procès-verbaux sont là mais vous, savez la différence de voix qui se trouve ici à Thiès à Touba dans la région de Djurbel, mais prouve forcément avec l'avance de Sonko vers dans, le sud mais nous tous nous savons nous savons qu'il y aura bel et bien deuxième tour. d'abord ndax tey muy ki nekk ci bopp réew meeg ñuy xëccee réew mi tey bu jàmm amul yaakaar naa képp ku ko ci yore tamit doo ko mën a yore ci loo xamante ni xama sénégalais na ci gis seen bopp kon muy résultat yi ñuy xaar xama kon ñu ngi ñaan tey nii bu résultat yi génnee na ñëpp ànd ak dal tey képp koo xamante nii gisoo ci sa bopp yoon may na la nga def recours nga topp loolu noonu di woo sénégalais yëpp ñu ànd ci ak dal comme niñ ci duggee woon ak bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génn ci alhamdulilahi rabil alamin benn bakkan ban ceerut jàmm rek am ci pour Sénégal jëm ci kanam. mais gannaaw ba ñuy war a àtte wàcceeguñ seen verdict ñaari cas yi ku nekk di indi ay chiffres am naa 57 pour cent amoo ko deuxième tour day am premier tour la ñuy yem loolu. waaw loolu moom du yoon parce que euh, gis-gis bi ma am foofu nit boo ko wóoloo ba dénk ko benn mbir eh, da ngay toog di ko déglu bu dégloo nag ba noppi nag bu nee lii la ñu xool loolu boobaa moom kenn ku ci nekk ñoo ci ñoom ñaar dina am kum ci arrangé dina kum ci arrangé wul mais kum ci arrangé wul rek nga xool li la yoon may nga def ko. loolu daal yaakaar naa moo gën xiiro bi ak ñaayoo bi nii amul benn sens parce que tey ñun ñoo ciy gaañu rek ñun ñi nga xamante ni ay néew di doole lan ñun ñoo ciy gaañu rek mais ñoom ñi nga xamante ne tey jii nii ñoom ñoo koy xëccoo doo ci dégg ku ci kun ci xaañ mbokkam doo ci dégg kun ci jam doo ci dégg kuñ ci ray ñun ñi nga xamante ne nag moom ay néew di doole ñun rek la ñuy rey. idi bu amoon complexe si doomu aadama kon heure bi rallié na depuis Abdou Diouf ndax idi Abdoulaye nekk na ci kaso bi ah Eh, Abdou Diouf maa Mansour mbay ne woo leen ma Idi léegi Idi bi mu ñëwee mu ne kii Abdou Diouf ne ko damaa bëgg nga bàyyi Ablaye Wade rallier ci man mais Idi def ko ne carrément man du ma mës a bàyyi Ablaye Wade Ablaye Wade ba pale gis nga Idi dañuy wax wor mais ñoom ñëpp a ko wor Idi du wor kenn te gis nga Sonko mi ñuy wax Idi mënu koo corrompre mukk ah Sonko mënul corrompre Idi ba Idi am faiblesse ànd ak Sonko Idi lépp lu mu def rek da koo def ci mentalité am ba amul benn politicien bu mën a ah ne Idi moo ko ëpp mentalité moo ko ëpp xel xanaa kay ku yàlla àndal. léegi deuxième tour wala premier tour. yéen deuxième tour dafa leer nañ ndax xoolal déglu ma non may la ma rek dama lay ne ah xoolal ñoom dañu ne ah fi mu doon ne actuellement ah 54 pour cent ñu jox euh, Idi ñaata 30 pour cent ñaata la 54 pour cent ak 30 pour cent du 80 pour cent Sonko ñaata lañ ko jox. non non Sonko ñaata la ko jox 24 non 22. 22 22 ak 84 euh, ñaata la. cent et quelque kon boog suffrage yi ëpp na. cent six pour cent dafa mun a am. Ah, cent six pour cent mënut a am. ah. bu ñu waxal ah. ñun waa Thiès sax ñun waa Thiès ko war a dañ a naqal ci Macky Sall nga bi ñu ñëwee Thiès daf ñoo xool ba mu neex la yéen waa Thiès gi ngeen dégg autorail bi pompe loolu ab saaga la pour waa Thiès sept ans nga gouverner ko rek euh, defaloo dara autorail bi defaloo dara semaine de fer nga nit bay jeexal ñëw taxaw suñu kanam taxaw suñu trottoir naan ñu gëj ngeen dégg pi pin pompe xoolal loolu loolu loolu loolu saaga la daal dafa am solo euh, boo xoolee depuis 2004 li fi nekkoon moo fi nekk ba léegi idée ko fi def du Ablaye Wade du Macky Sall te ñun loolu dañ ci sonn deuxième tour dafa war a am ci yoon dafa war a am bu nangoo dafa war a am bu nangul dafa war a am man lii laa am lu may wax Macky def fi dara ñun dañu sonn ñun jeunes yi ku baax nuyu na waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu tamit seen euh, liggéey bi ngeen di def et je pense que euh, wax bi ci jub bu fi jógee euh, xool yee tàng ah. mais xam naa ni Idrissa Seck du Waa seulement Idrissa Seck il est national il est international waa Thiès waa Thiès kese moomuñu ko te boo xoolee score bi du Thiès rek a ko jox partout Idrissa Seck est sorti deuxième pratiquement donc je pense que Tay, nous faisons face à un gouvernement boo xamante ni dañoo jàpp ni xaalis bu ñuy génnee seen i poche ñoom ñoo ko moom ni askan bi fal fàtte ni fatani ni askan bi mo len fal fàtte ni bu ñuy utiliser nonu askan bi mo len ko jox te bu ma tay directeur DG wu euh, Dakar Dem Dikk mu né dañuy wara raser parce que l'autoroute il a Touba bi def ko a foutu parce que c'est des intérêts crypto personnels ñoo taxone donc ñi def euh, il a Touba defuñu ko parce que laal la dañoo gëm Serigne Touba déedéet bo démé tey euh, tey tay Mustapha Cisselo constaté na ni tay dafa xolom dafa jeex ba benn instant mu ne bu ma kenn waxati affaire Touba je m'en fous de Touba donc pour vous dire que vraiment les choses situation bi fu ñu bu ñu la peur a changé de camp départ dañoo doon naan état opposition moo ragal mais guddi ñu toll nii ñoom ñoo ragal perdre les élections te fu ñuy jëm nii ci deuxième tour la ñuy dem mu neex leen mu naqari leen et aussi tamit j'interpelle les médias l'observateur tey dem bi ma liiree tey seen chiffres ñu joxe au niveau des résultats départemental. Euh, départementaux, constaté à Dakar, son que nous avons 101 trois voix, nous avons 11 000 trois voix. Regardez cette différence pour bref. Je calculer, ben instant demander, mais est-ce que je suis un ou un gars Effectivement, nous vérifier après on a constaté qu'il y a des erreurs. C'est le cumul des votants. hop, le cumul des suffrages euh, valablement exprimés. Donc, il y a il y a il y a il y a il y a dafa am dafa mel ni comme li ko gars yi euh, kii ñu amoon dut ñu amoon ci média yooyu je pense que ça commence à se confirmer. gannaaw ba ñu war a saytu nee na ñu toog nëgëniku alxames wala ajuma verdict dina dina wàcc kon ñun nan lan war a doxee. non fu mu toll résultat yi wàcc na ba pare parce que fu mu toll ku nekk ngi am des résultats. région de Thiès déjà xam nañ ni département de Mbour daanu département de Thiès daanu département de Tivaouane daanu donc départemental yëpp affaire yëpp mu ngi daanu. Donc, si vous avez un calculer, vous savez que Macky Sall peut dépasser 45%. Idrissa Seck mongi ci digënté 39%, Sonko mongi ci digënté 17 euh, à 15 à 16%, Issa Sall ñi dem ba 8%, Madi Kenya dem ba 4 à 3%. Donc je pense que l'élection il fu mu tollu ni Macky Sall day bëgg affaire yi mais duñ ko may duñ ko may fu affaire Donc on va se battre jusqu'au bout. Fi ba vendredi duñ ko may deureum lu mu am moom la am ëpp ñu ndey ëpp ñu bàyyi ci dëkk bi. bu dëggalee premier touram boobu lan la mën a jural réew mi. lan la dëkk bi nga ma ko élection yi passé élection yi passé législative c'était c'était c'était une population moo moom la ay nit lañ mais cette fois-ci c'est le rendez-vous d'une personne avec son peuple et je pense que waa Thiès waa Thiès du ñu des ci et je pense que légui waxuma la maire kessé mais jeune ku nek na nga tak sa toubay nañ japp ni mom ku nek na nga commencé entraîner xéer yi mom day dem bu yabo nak no xamni mom duñ ko may dara nak ñu ngi koy bay ci 6 rek mom lañuy am tay ñun ba dool ñun ci all bi lañ dëkk amuñu dara suñu doom yi dañu jang ba na xar ku nek suñu yor nga sa diplôme mais amo liggéey kon mbir bi nañ ko jaaré ci suñu ñun ñi waju dañu son dañu daw ba bëgga feba mënu ba am dara dara dara dundal suñu njabot te suñu doomi jang nañu am nañ lepp kon mbir bi ni nek ni tay di election bi ñu yor suñu kayit dem sani nañ ko tek ci yoon suñ ko tege ci yoon dañu kontaan. premier tour wala deuxième tour ya boo Ya, am. am premier tour mo ya am deuxième tour mais sur justice bi dal mu ngi si loxo justice bi bëgg nañ mu leral lepp man de lima ci wax man jigen la citoyen la yag na wote 80 ba legi 118 ba legi ma nga wote waye man li jëmale rew mi kanam man ci lolu la ant ndax dama yoré samay dom sama borom kër genn aduna gis ngeen ma ni damay jaay ndox di jaay sidem man lii jëmale rew mi kanam man la wax li ñepp wax man lol la wax ba ndax samay doom ya nga ne seen jang yaquna awma luma len fayele école amuñu liggéey amuñu fu ñu jàpp lii may dunde nii ci laay dundal samay njaboot kon nag tey bu doon sama sago tey réew mi day naat ba ñëpp xaj ci biir man loolu laa am ci lu may wax mooy sama toogaayu fii. Ah, ah yow tuuti fii bi day day day day ah. léegi yow koo yaakaar ni yow moo waram jiite réew mi. ah moomu réew mi. ah man de wax dëgg yàlla Mody sax yaa na yoon moom. Mody yaa na yoon nag Mody moom yaa moom yaa xam ne na sama kaaj waaw Mody taay yaa Mody moom yëw waaw waaye taay yaa moom yaa moom mooy xam waaw. yal na ci yàlla def jàmm rek ku war falu falu ku warta falu ñu xam ne waroo falu yàlla ubbil ñu buntu xéewal jàmm am. waaw mais premier tour deuxième tour loolu. Hmm. waaw. premier tour ak deuxième tour ku nekk di ah, bañ loolu mais yàlla bu dogalee ki war a wax wax ne moo war a gagné rek ñu gëm ne loolu la hmm. waaw doy na waar moom mais nañuy yokk sant yàlla rek te di ko doxale si ndànk ndànk doxale ko si lislaam doxale ko lu yàlla santaane ñëpp dañoo ñun julit lañu dañoo war a euh, sukkandiku si kaw yi dëgg di dox dëgg di wax dëgg su ko defee ñëpp am jàmm ñëpp am salaam parce que man mii di wax ak yow nii i Macky Sall laa faraloon waaye li waral ma bàyyi mag yi dem ci Idi dafa am lu waral loolu. Martin Sam sama doom jigéen bi la fi autoraay bi rey ci koor ga ci at moomu te kenn waxu ci amul benn doomu aadama bu jóg ñëw félicité ma na ma sigil ndigaale amul. Idi nag dem naa ba si biir këram toog mu toog mu yëkkati a jox ma ko ma ne ko soxla ma alal ji dimbala ma ñu topp kayit bi ba ñu mën maa fay sama ak doom ba léegi aw ma si lu ma neex. man mii maa waxoon ne si kattan suñu borom jarul téléphone di sonné Idrissa Seck suñu ko xeexul ëpp ñu ko doole dana falu ci réew mi. Eh, Macky Sall boo xoolee amul benn dëkk bu nekk ci Sénégal boo xam ne boo boo boolee opposition bi lañ fa am lim am moo ëpp amul fenn Macky bi muy gañ Abdoulaye Wade bi muy xa bi ko Abdoulaye di xajal lam amoon li idi amu ko ëpp. kon buñ gars yi ñoo war a génn ci dëkk bi ñun ñëpp ñu génn marché teg ci suñu bakkan yaa ngi dégg suñu bakkan fas yéenee jàmmaarloo ak moom gis nga bu Sall mii buñ buñ ko seetaanee barke Seydina Mohamed gis nga ko Macky Sall amul benn vidéo booy gis wala benn foto booy gis muy nuyu ay tubaab te su mi ma xanami te bu ñu toogee suñu sëriñ si ñoom ñëpp sëriñ sëpp ay simple citoyen lañ sol mbaxanaam sol ay dàllam ci biir barab yu tedd yi lu ko neex mu def buñ ko seetaanee mu Mohamed xam na ne ay jaam la ñuy xale doon ñu ñoo tappet doon ay ragal gis nga maire yi nekk ci dëkk bi ak candidat yi ñooy ay tappet ñoom ñoo war a jiitu génn ci mbedd bi ñu topp seen ginnaaw ñu reyante barke alxuraan buñ ko defut Macky dina fi toogaat. ah ñaan jàmm rek man du ma juge du ma leneen kon nag ñaan yàlla def ci jàmm dong ci réew mi ñaan sinon pour wax kii am raison kii am tort moom du sama droit. mais yéen ñi yàgg a fekk élection macha allah euh, yii ak yi daan am ay jamono euh, ban jàngat nañ ci mën a defal. Sénégal moom yàgg naa yëngoo noonu waane moom jàmm dong ci mujj jàmm dong nag ndax fii suñu mag ñu baax ñi fi ne leneen mënu fee am lu dul jàmm. réew mi de moom actuellement tax na suuf yéeme na lool ndax ci ay ci élection yi nii ni mu fa demee actuellement moom moom waaw vraiment yéeme ne quoi c'est parce que dafa mel ni daal euh, nguuru njaay doole yow jaay doole actuellement moo fi am c'est parce que teguñu ko si yoon waaw c'est parce que actuellement fii moom Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni dañ ko war a à chaque fois ñu koy teg ci yoon di ko teg si code waaw a lépp lu am ñu koy kii mais dafa réew mi dafa dem ba actuellement daa mel ni kopp doole sa sa sa morom rek da koy jaay quoi. mais premier tour ak deuxième tour loolu noo ko gisee. ah premier tour man waaw deuxième tour actuellement mënu moom mënuñ mënuñu si wax fi en tout cas voté nañ def nañ suñu devoir après dañuy xaar résultat yi ba xam lu mu wax mais nag ci yoon yow deuxième tour moom ñu ngi koy wax daal mais fi mu nekk ku wax rek dangaa wax sa xalaat quoi. mais mën ñu wax euh, day am wala du am mooy loolu en tout cas daal nañuy déglu euh, fii ak vendredi wala lu am rek après ñu xam quoi. ah wax euh, tolluwaay bi ñoo ko gisandoo ñoo ko gisandoo de voilà bon mënaguñ cee wax lu bari nag parce que dara xewagul tamit nag d'après résultat yi ñu am dara xew xewagul waxaguñu leer. waaw li yaakaar daal mooy deuxième tour dana am loolu lan yaakaar. gannaaw ba dara xewagul ilimaanu njiitum réew mi génn na joxe na chiffre opposant bi tamit ñu ngi joxe chiffre loolu. ah waaw mais Elimane njiit réew mi daa joxe chiffre comme directeur de campagne directeur de campagne mais pas comme premier ministre ah donc c'est normal fi mu far fa lay joxe ne moo gañe comme ñun tamit opposition ñoom it far ñoom it fa la jàpp ne moo gañe waaw loolu laa gis. léegi boobu est que du mën a indil sooxe sooxe ci réew mi. ah yaakaaruma ko de parce que affaire yi ñu ngi commencé génn tribunal bu dee résultat yi génn tribunal nag moom moom moom moo kon yaakaar naa ne loolu du am problème. Macky Sall nee na premier tour lay génn opposition bañ nañ na. ah non Macky Sall moom bu waxee premier tour moom loolu moom euh, mi ngi bëgg teg boobu lu mu xamul quoi li ma ci xam daal mooy Macky Sall daal na bàyyi xel ci ni doomu aadama comme nit ñi ni ko yàlla may woon pouvoir bis ko yàlla xañee tim na ànd ak jàmm ca seral ko mu ànd jàmm Sénégal gi am jàmm quoi sinon bu ko deful tim mosu ko di am ni nga xam ne ni moom la ko doomu aadama joxoon mu nekk ngor ñu jël ko jox ko ko pour am ci moom jokk ko bis bu ko xëy yàlla xëy na ko xam mais bu yàlla dogalee tim mu gañee ko tim na ñëpp ànd ak moom ci jàmm ci ni ko loolu yàlla dogal mais damaa bëgg tim mu sàkk mu mu nit ñi kenn moomu leen il bay mu bàyyi xel ci yeneen doomu aadama ci waa Dakar loolu baaxul nit nga bàyyi xel ci ñi nga xam ne ni nga président dafa nekk loo xam ne que nii lu yomb rek la yàlla yàlla bu la dara li ci des mooy bàyyi xel ci doomu aadama bul bàyyi xel ci ni yow rek ak sa bopp ak say soxna ak say nit loolu baaxul ah man boog lax bu la man du ma ko def ba ne ko bëgg la yàlla xam na ko waaye li ma bëgg moom bàyyi xel ci ni na bàyyi xel ci doomu aadama yi da jàppee da jàppee ni nit la comme nit ñi yàlla mooy favoriser doomu moo ko def noonu léegi li ma bëgg nag mooy mu def boppam bàyyi xelam ni na jàppe nit ñi jërëm nit ñi yërëm doomu aadama yërëm sama classe gi nga xam a ay ay ay ay ay góorgóorlu la ñu ñoo ngi sant yàlla baax nag mais dafa bëgg mu yër gën a dolli waar ne te bàyyi xel ci ni Dakar rek du du Sénégal il faut mu bàyyi xel ci population bi population bi mom ñoo ko fal léegi ñi nga xam ñoom ñoo la fal nag ñoom ñoo ñoom ñoo lay folli bu góorgóorlu gis nga président bu góorgóorlu dëgg-dëgg jëlul sax muy nu mu tuddati jëlul sax muy euh, campagne président bu liggéey dëgg-dëgg jëlul sax campagne président bu liggéey dëgg-dëgg dëgg jëlul campagne toogal fi nga toog wax campagne campagne yu dara na def baax ku baax na di jàpp fii jox ni ñii di ñi kon ñi mer ñoo gën a ñi li boo ko yàlla joxaatee réew mi na bàyyi xel ci nii ah tey bis la bee ëllëg bis la de. mais suñu déggee sa wax ñi mer moo ëpp ñu kontaan kon deuxième tour. ñi mer moo ëpp ñu ko deuxième tour xam naa ne moom boo amee itam na na bàyyi xel ci ne loolu la yàlla dogal tour la gagné woon xaw ma nag man dina ko am xaw ma du ko yàlla xam waaye li ba bëgg daal mooy bu fekkee yàlla dogal na bu deuxième deuxième tour am na na na rafetal ay mbiram teg ko ci yoon ku gagné yàlla xam ne ka nga di sant yàlla ginnaaw yàlla bi ñu boolee ki nga xam ne mooy le président Idrissa boo xoolee man a nguriñ daanaka ñoo ko yoreel micro central. maa ngi ñëw ci loolu benn Bokk Yaakaar 57 pour cent lan taxawee yéen nee ngeen deuxième tour loolu lan na mën a jur ci réew mi. waaw ku na xam na ni loolu waxi waxi ju yàqu la rek ndax euh, ñun duñu ay ay ay innocent ndax ku ne xam na ni tey digganteem ak euh, Macky Sall ak Laye Wade ba muy dem deuxième tour moo moo ëppoon doole que nii ci moment bii ñu toll suñ diggante ak moom nag moo ëpp doole que moment bi nga xam ne moom lañ toll Ablaye Wade moo ko pon doole fop kon tey bu ñu ko yóbboo deuxième tour ci digganteem ak Ablaye Wade ci point yooyu mu amoon ñun daanaka ñun romb nañ foofu kon deuxième tour mën euh, mën na am yaa ngi dégg ndax premier tour ku ne xam ne ni kenn mënu koo gagné ci Sénégal. 57 pour cent ku ko am war ngaa mën a gagné premier tour. déggoo ma de loolu waxi kaso kaso parce que dañ koy wax ay nëgg sërëx la ndax buñ ko waxee tey. keneen mën na conseil constitutionnel mën na sukkandiku ci ni ñoo waxoon nañ 57 après ñu ne ay 51 52 loolu gars yi nañ ko ba pare. kon deuxième tour il faut mu am kon ñu nekk liggéey liggéey bu métti bi nga xam ne tey man kenn du ma nettali man maa àndoon ak moom yaa ngi dégg ñu yoroon microcentrale yi. dëkk bu nañu dem fa mu liggéey liggéey bu métti bi ñu egg si fii ànd ak coalition bi nga xam ne moom la àndal muy coalition bu am doole rawatina nag deuxième tour bu ñu fa demee nag ku ne xam na ni opposants yi dañuy ñëw jàpp ci. kon Idrissa dañ koy gunge ba mu dugg palais kon dañuy ñaan yàlla deuxième tour bi buñ ci àggee sunu borom may ñu ndam ba ñu dugg fi nga xam ne moom mooy pale Sénégal ñu mën koo defar géwél te élection yi ñu nii musu fee am te parce que ñoom dañoo defoon Idrissa amatul doole waaye xam nañ ni tey dëkk bi mu dëkk muy Kajoor kon a xam na ni Idrissa li muy faral di wax rek moom kenn mënu ko fee jëlee kon dañuy ñaan yàlla yàlla may ko wér ak kattan ndax xel mi mu yor na xarañ na xam na état nan lañ koy doxalee kon yàlla na ko yàlla lafal cat di sant nag télé bi bu baax ndax télé bi mënut a ñàkk ci ci askan bi Sénégal rawatina nag ñoom ko fii nga xam ne mooy Thiès kaay muy Thiès prestige kon yaakaar naa ne yow buur boo ci nekkee ngay sama frère di sama rakk ñu bokk li ñuy def kon dañuy ñaanal ki nga xam ne mooy Doumbia yàlla may ko ndam ndax télé bii nga xam ne yor na ko du ñu bu ndaw la de mais war na àdduna kon dañ koy ñaanal mu gën a nekk international yàlla na ko yàlla lafal cat. may leen wér di sant buur yow yàlla nañu yàlla may ndam may ñu taw feex yow di la sant bu baax a baax ndax rek ju baax nga liggéey bi gis nañ ko maa ngi lay suivre yaa ngi ci yoon wi yàlla na la yàlla gën a teg ci yoon ñu jaajëfal ñëpp di jaajëfal Sénégal kontaan naa trop jërë ngeen jëf